saat génn ci biir suuf si léegi mujj gi dañ koy mujjee saasi yóbbu ko kër sëñ fàllu ko waa bas bas ma defe naa yaa ne woon réew mi ku fi falu sa bàyyi la sëñ la fal waaw waa kon nan la ngeen mën a baase ba noppi sëñ tuubaa wàcc leen ba ndox mi ñëwaat yàqaat seen baas ba ngeen nar a toxu question la rek question la de question la de réew mi fi sëñ moo la fal teg ngeen baas pour passer Seigne Touba lan motax munu leena a ba Seigne Touba ar baas bi fa fa ngeen ko décider won ngeen défé ko fa lu ndox mu génn ci souf Seigne Touba munu loon baré ndox xam nga tapalé yaa ngi nii xam nga yeen da ngeen nek ci ay tapalé ligéyu leen yap nit ñi ñu waron leena sanctionné sanctionné wu leen buñ leen nga tok ak Macky ragal ko tok ak Amadou Ba ñeme ko nango wax la wax 45 milliards fan ngeen ko def ci assainissement yeen xam nga bu ngeen ligeyon suuf du nan ndox ba diko gokk wat ku ma sa gis li ku ma sa gis li wa venice venice Touba yeen lay waxal xam nga basmi daf leen yab mais yeen da ngeen neex yab jara yab parce que ñun dañoo ñemee tiitaroo suñu ñàkk jom sëriñ si dañuy yelwaan di xoggalaku taalibe yi dem dëkku jàmbur yi nee nañ liggéey nañu yee yaay lan la ñuy tiitaroo barki Dembo Ndiaye li ñu rey ci suufu Sénégal amuñu li ñuy tiitaroo lu dul nee nañ yee yaay ñoo dugg ci benn marché jënd fa loo xam ne kenn mësu koo jënd ci kaw seeni néew yi di ci tiitaru nag de ba di ci xaaral moo tax ma ne la réew mii <laughs> buñ nekkee ay nit itam dana ma jaaxal de <coughs> en attendant lii

lu bokul ak ceebu yàpp yi ak faylaay bi bokul ak ceebu ginaar ak yàpp yi bokkul ak ceebu yàpp bi bu bokew la euh, day am sax ceebu géej ak ñebe daa mel da nga ne da ngay fi xam nga cest euh ha na dem tuti na dem tuti ma dem wat benen vidéo gis nga réew mi kuy wër dooma ram ba dugg biir Sénégal nee la franco farankulaayum réew mi ñoo fi nekk barki démboo njaay ay taalibe taxaw fi jay nit xoggali ko moom ba sëriñ si ne ko nappuus jàpp tëj ko si kaso bi ñu naan mu ngi dee nag deewul woor nag woorul grève de la faim la def deful grève de la faim ñi ko fi doon jay yëpp ñoom ñëpp fàtte nañ ko li xew mooy lu waay jàppoon na ko ku deewoon nañ ko fàtte ku nekkoon ci sukuraat nañ la fàtte ku xewle Mountakha mi nga xam ne complot woo complot ci réew mi moo koy teg moo xewle de bu subaa maa mi nga xam ne moo leen tënkam lu woon pendant ay at woo leen ngeen bàyyi góor yépp bàyyi lii seen lii seen njëriñ dem ci loo xam ne ba ngeen ko dalee def kenn xamul ñaata at la te mënu leen a jëriñ dara lu ngeen jooy daaw bu ren ñëwee ngeen piir gën koo jooy amalu leen benn njëriñ su ko defee band yi taxaw na lu leen neex ñu def suñ bëggee valider rek jaar ci seen yàlla yi ñoom tamit ay bandi lëndëm lañ ñoom dañoo masqué wuñu le masqué wuñ te lii ku leen ko wax ngeen mer ku leen ko wax ngeen mer jàppe ko lu am fulla nag te du lenn lu ci am fulla ndax am réew bu demee bax bandi leen bi Mbàkke ñoo ngi tuub de Mbàkke ñoo ngi jégalu Mbàkke ñoo ngi tuub ñoo ngi jégalu kàddu yi waruñ ci woon naa sof dara sëñ Massamba li mu doy na sëkk mate na waaye ñun de Mbàkke dañ lay ñaan dañ lay ñaan de Mbàkke ñun de xam nañ ne wallaay jaguñu ñuy jëf jagut neexuñoo téye waaye nag ñu ngi lay fee sa sang bu tedd ba suñu sang ba lam ñu digoon Mbacke ñu ngi la koy feddali nga dimbali ñu ci boo ñu la jiitoo Mbacke taxaw boo ñu jiitoo taxawal xaar ñu boo doxee gisoo ñu nga dëpp dajeeg ñun la jiitoo Mbacke nga jiiteel ñu topp suñu ginnaaw Mbacke dimbali ñu buñ tàggoo lii la ñu sang bi digoon Mbacke lii la ñu feddali suñu digg ak yow dimbali ñu buñu tàggoo Mbacke téye ñu sa bopp wallaay boo ñu téyewut ñun mënuñu dara. tekku ñu dara boo ñu teewul Mbàkke du joxe Mbàkke dimbale ñu Mbàkke ma doon naa jàmm gën a xeebu ba tey jàmm gën a xeebu gën a motali si kaw jaam yi motuma la sax ak taal bi Mbàkke maa ngi sàkku Mbàkke nga téel ñu sa bopp léegi laa lay ñaan Mbàkke nga téel ñu sa bopp nga saxoo ñu liggéey bi ñun bugguñu dara si àdduna man de bëgguma dara si àdduna man sa jëmm bii rek foo ma jublu rek ànd naa fa yow xees xi daa bàyyi may def yëpp jàng alquran jàng xasira nuur daare yooyu yëpp sàkku ma si dara mbàkke sa jëmm ji rek laay sàkku ragaluma àjjana bëgguma àjjana ragaluma safara sa jëmma ji rek laa bëgg mbàkke maa sey si jëmm ji di la liggéeyal sàkku ma si ngërëm bëgguma dara mbàkke bi gën a doon ñaaw teel si doomu aadama yi mooy Mbacke yaa ma jël tey bu ma si taxaw si àdduna ñëpp yaakaar ne ku mokkal alxuraan yàlla jàng na yàlla seetal na leen tar dal baata defuma ko. billaahi lesi Mbacke. sëñ maa ngi sant ñëpp. na mi ngi sant ñëpp. di leen gërëm. di gërëm seenu cant. sëriñ bi nee na daanaka seenu cant. ak sama gok ak mom ak ciantam lot lot nañ ci neena ñun ñepp bokk nañ ci lot ndax ku ne la nga yek neena ku nekk la nga yek du ya ko yegal sa bop neena ya ko yegal sa bop man mi gëna doy di ci yeen sax waxal rek kon nak man mi gëna ben question rek la am nak man ben question dong laa am ci li dan dong laa ca xam nga réew mii waay waay waay waay ku la naxa ñàpp damay yi man dina xeesal ba raw Michael Jackson défiriser sama bop ba mari ne tali ba mo raw gere faas ndax li ñu na ma ci la bok gàcce <laughs> la de gàcce la de wallahi azim gàcce waaye man amna question waaye yéen ndem yéen ngi dundu mbakelen mom bu ngeen deyee ku len mom question rek la len di laaj ba guma ku ne jébbal len ko yalla kat parce que yen da ngeen yen da ngeen di signaler ci kaw tak ci souf yen a ngi dund am njëriñ meuna a jëriñ yàlla ngeen lank ne du ngeen ko jëriñ jël seen bop jox yalla gen ne mbàkke moy bor moy seen borom léegi bu ngeen deeyee ku len mom dem bu ngeen baxé mbàkkee len mom wala si wala lay wala ñass léegi bu ngeen deeyee ku len mom question boobu dang la len di laaj duma len xass luma len wax dara def len lu len ne borom troy damay troy sen tatu mama ku fi ñëwati andi ay troy rek ma xawma troy la xawma troy ku fi ñëwati andi troy wala nangam ma troy sa tatu mama dégg ngeen lima len wax ku fi troy rek ma troy sa taati maam seen becco jeen way ku ma sa gis li dama mën dëkk ci di bolaka do meram yi ngeen do ku ma sa gis li yeen man problème bi ma nekk doyna sa li ngeen mën a rësëf du ko antan wala ngeen xaar buma jënd bop camion waaye sen becco bàjjen waay comment ça gis li question boobu laay laaj la poto yi jël seen bopp taxaw jooy bu bul dem mukk bàyyi ñu gis nga bàmmeel amul benn sëriñ buy nangu nga suul ko ci wetam waxatuma ngeen bokk bàmmeel bu ngeen waxee seen jooy yu métti yeeg xiir yu métti yeeg siisu yu métti yi ba sëriñ bi fekk leen ay nit ay nit taxaw ci sen aduna gi ba di ray ay nit ndaxub serign ba di saga ay sering, nit ndaxub serign ba di xas ay nit ndaxub serign serign bi faalewul seen nday besam jot ngeen ñew lu ngeen am mu triande lepp mo raw taf mo raw trian mo raw nu mu ndel kat serign si ñoo raw ndellkat yéen da ngay seet comment sa gis li yeen seen aduna gaangi ni jagati dara baaxagut ngeen di xalaat foo xam ne yeggu leen fa wala tayal tayal rek la lii moo tax ngeen bëgg a lu ngeen xamagu bi ngeen xama ngi nii dara baaxu fi mun taxaa mi leen fi digoon fukki poñ ak ñeent tey ma nga ne doon laaj Vatican ñu jox ko venice njëgu bato ba tey gisaguma fi wala sax mu jël sareet dindi pono yi fexe defar ci suuf ba sareet yi mën a tëmb te wàccee fas ngadara coono ñu xam ne kii na dara ci kaw àdduna waaye ay trian yu ndaw topp ay mag rek fan ngeen jëm ak trian ku ma sa gis li ah imaam ñëw na dugal ko nag xaaral dugal lii gaal bi joow ci ndox mi taw bi lii waaw lii la gars yi wax na defar nañ ko de waaw Touba ngi nii ñu ne mu ngi nii ñu ne ndox mi mu ngay dem jumaa jaa ngi nii tey waaw suba la bi suba la magal bi suba juma jang ni nii waaw da ngay xuus si ndox mi doora jall jàll xuus waaw ngay def do ko dem ci juma ji bala ngay dem ci juma ji da ngay xuus si taataa bi waaw ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne defar nañ imam may ma tuuti waaw li la gars wax na defar nañ ko de waaw Touba ngi nii ñu ne mu ngi ni ñu ne ndox mi mu ngay dem juma jang ni

ak milliards dañu financé yëpp li xew Touba ndox mu ñuul. Mountakha délégation Futurs Médias ñëw xam ngeen ne ñëw na añ na ba pare son sànq war a dalal fii macha allah soxna Bali Mountakha borom fondation bi nee ko màggal gi képp ku ñëw ci dëkk bi rek. yaa ko dalal yaa ko jox mu añ macha allah ginnaaw bu ñu jógee ca Serigne Mountakha fii la ñuy jaar yendoog moom añ tey nag léegi damay laajte Bali muntaka muntaka mom ñaata soxna la yor ak lu tax Marème Faye Sall jabaru Macky Sall yor fondation muntaka jabaram tamit yor fondation kon ah damay laaj rew mi ndax ñaari ñaari président la am wala burek ak président damay laaj question la nak imam nuyo la gars yi ba waxtaan ak ñom man dama sonu ci <coughs> imam Ya Imam. Ya Imam. Siapa ma Imam ba dafa dafa crise cardiaque. allo. Ya. ah Imam man dafa ah. kan naa da nga nekk réanimation sax. ni ngeen def jam. Jam ci kamu fi Imam bawa ko amee nga ëndaale ko. waaw ñu ngi nuyu mbokk iya, di leen masawu ay coono ñoom ñi nekk ci mbënd mi ak fitna yi nekkeek jafe-jafe yeeg ñoo ma gën a xam nekk ci màggal gi ci fitna ci jafe-jafe dem beeg dikk bi jafe-jafe la dëkkuwaay bi jafe-jafe la berne yi ay bor la lu ci ëpp jafe-jafe la ñii dem dañuy taf yëngal uti paas dem ñii berndeel genn gan yi tuuba dañuy lepp leba leba leba lepp fu nañu dugg fa lebi bor ngir waneen waneen la xéewal xéewal xéewal ñëpp ne alhamdulilah neex na neex na neex na bu ñu paree di fayi bor ñi ci ëpp li ñu def mënuñu ko parce que ñi ci ëpp liggéeyuñu ñenn ñi moodu yeeg faatu yi nekk ci bitim réew ñooy yónnee maanaam daal mënuñu ko daal seen dara matul réew mi réew mu ndóol la réew mu ñàkk la réew moo xam ne dañoo war a liggéeyi futteeku liggéey mooy farata ci ñun waaye du ay màggale ci gàmmoo ko yii nga xam ne ajulum ngooñ yóbbuwuñu fenn ay tappale la loolu nag boo ko waxee ñi ngi koy waxal jagleel leen ko bëgg ñu suqaliku ñoom ñoo lay saaga ndey nan la da bañ sëñ Tuubaa da bañ yoon yi da ngaa bañ man li may wax mooy defar yoon yi seen yoonu murid gii li may wax moo koy defar leen yërëm nag dara duma len ko may duma len may dara da ngeen nek nit par force ñu ànd tabax rew mi wala doon am jàmm da nga bañ li rek da nga bañ rek sama yoon neeku ci wax leen lu leen neex seen ñaawte fe ki seen i njub la nga gi seen i turiyan ki seen i dof ci yoonu murid gi lepp lay génne nako fang ci ko tabal ji ba picci yeek rab yeek ginne yeek lepp lu yalla bind dana na ne du ngeen ay nit loolu mom yeen ba gi fekk la ma leen waxoon ngeen ko ren lii ma leen di wax ren da ngeen ko dund déwén gas leen suul genn muus la parce que du ngeen ay nit bés bu nekk ma ne leen du ngeen ay nit ngeen saaga ma ndey bés bu nekk ngeen wane ne luy luy firndeel na du ngeen ay nit léegi mu bàcc bàccal balaa laaj bee pare sànq tawoon na taxawaat na day tawaat léegi ci guddi gi waaw màggalu taw Venise Touba Venise am ngeen Touba fu nekk bam mu des Touba Venise léegi nak yalla indi na leen Touba Venise parce que du ngeen ay nit sama ben xarit noonu wax léegi def na ah wa dekk bi de moom day waar mi ngi taw de waye nak lima ci jaaxal moy ñom ñom ñom borom xam ci defal bam ne boy teg ci ay photo yi ci karale ko bu mu liste teg ci lampe yi de nga maam nga ñu jox la yap nak jox la pomme ak banaan nga sëpp seppi nak waye bo genné ci kër gi sa tang bi ci poto poto bi nga ko dugal poto poto bi ñom ñom ñom ñom c'est incroyable naka la ngay défaré biir kër to do défar mbedd mi dox ci kër gi do défar biti kër gi man musuma gis façon nit ñu melni xana nit nit lu muy silwisa silwisa bala nga dugg ci kër ci mbedd ngay jaar mbedd mi jëm sa kër mo wara gëna baax kër gi baaxaayu kër gi ak silwisa gi ngay silwisa set gi ngay set nité gi nga nité dafa war a feeñ ci yoon wi jëm ci sa kër bu ñu duggee ci mbedd mi jëm ci sa kër dañoo war a xam ne fii ay yëte fi dëkk waaye ci mbedd yi ngay njëkk xamee ne fii ay dof ñoo fi dëkk ay làppato ay nit dëkkuñu fi mbedd yi yéen a ngi dugg ci avion yi dem fa ne ci àdduna bi dem nañ ci dëkk tubaab bi ak naar yi bu ngeen wàccee ci dëkk tubaab yi ak naar yi nga xam ne ay nit lañu ca mbedd yi ngeen xamee ne dëkk yi ay dëkku nit la waaye bu ngeen jëlee avion ba wàcc seen dëkk làppato yi ca mbedd yi ngay njëkkee xamee ne fii ay làppato ñoo fi dëkk kañ ngeen di nekk nit kañ ngeen di nekk ay nit di defar ay mbedd di ko assainir def ci ay làmp pavé ko wala ngeen ne ko drainer ndox yi mu am ay fu nit ñi jaar fu oto yi jaar trottoir yi ngeen teggi taabal yeeg jaaykatu tàngal yeeg taalibe dof yi nekkoon seen tool yi nekk naan dañoo nekkoon ci daara yi ñun ñëpp ngeen takk leen ut benn mbaar tëj leen ci jëng leen bu kenn génn parce que amuñu métier xamuñu dara ñu bàyyi mbedd yi ñuy occupé teg ay table nan damay jaay siddem ak damay jaay wogg ak damay jaay tàngal ak damay jaay pakkatu yi pour pourquoi parce que jaay doon nga man ba nit ñi jàngi-jàngi woo sa bàyyi nga la sànni ke daara ja nga nekk fa sëriñ ba mu ba sa tànk yi xar nga dem ba nekk mu kallaf dix-huit ans amoo benn métier ñëw Touba daaj sa taabal teg ci kaw yoon wi dem Dakar fekk ci kaw yoon yi nga daaj fa taabal nit ñi war a dem ak dikk nga jël yoon bi nit ñi war a jaar ne fa raj ji ab taabal looy jaay socc ngay jaay ñetti tàngal ak te su màggal ñëwee kenn du la jiitu ngeen ne ay nit ngeen mbeddi Sénégal yëpp yàq nañ ko Ndakaar ak Thiès ak Louga ak Ndar foo ci dem ñoom làppatooy taalibe yi nga xam ne dañ leen yóbbu ci sëriñ si ñu wulli leen ba jàngal leen ñetti saar rek benn ñu génn fa nag bay seen i ba seen i tànk xar ñu génn ndax léegi ay ponkal lañ am nañ ñu commencé yëkki seen suufu tuba yi il faut que ñu am soxna wala dañoo samp kër wala lekk nag léegi nag il faut que ñu dem dundi il faut que ñu lekk nag léegi màgg nañu day waajalul len pour que bu ñu màggee ñi mën am xey mëna a liggéey sëriñ bi fagu loolu bàyyi di ko jur ab làppato la làppato la jur jox ko sëriñ bi mu wullu ko ba mu nekk mu ko lex mu sanniko ndax mën ta tey ñepp ñen ñi lay tey def ay bëkk néeg ñu nekk ci système bi tok ci buntu bi dugal caga yi ak di encaissé add yey déglu na sank benn bandu gànn mese euh, suñu asan mese rek waye wax ji dafa reelu lool waye mom da naka liñu wax yi duggu ko neena waye ji joge jaay ko téléphone bi jóge Ndakaaru di dem Touba am na xaalisam daal di loué ab motaar daal di dem ci police ba corrompre leen jox leen xaw comme réew mi lépp corruption la Macky Sall day corrompre Antoine Diome réew mi sàcc la ñëpp ñi sàcc Mamour Diallo dem ca Mountakha Bali la ñëpp ay sàcc lañ moom it mu jaay téléphone am ne ah comme réew mi réewum sàcc la ku fi am as am poñet loo bëgg mën nga ko fi am waaye waaye damay dem Touba waaye waaye nag embouteillage bi daa bari jekko ko téléphone bi ko wax do embouteillage bi da bari damay dem luy ji we eh, wee eh, eh, wee wee motar police ko ñepp mu xalal ma yoon yi ma jall mel ne Macky Sall muy dem ak wala mun taxaa mu luy ap police yam ah ouais ah ouais mu luy ap police am xoobu lu mu ko fay kooku daal dina ko topal sama ginnaw mu ne ko lo yore mu ne ko bu mu ne ko tap ko ci sama taat wii sama ndigli taga top sama o sa auto bi tak ko sama ndigli mu police motaar be ko yor ya, mu ko wax waji de waji top ci ginnaw ma ngay degu de ma ngay gidil na ah waaw kay ma macha allah laay balaa duma ca puucu bu ma tee pàcc ba ko waa jaag motoor baa nga ca kanam kat ma nga mel ne am sookum jóob an weew weew di xàll kat di xàll dégg boo xam ne sens unique la oto yi war a dikk ji génn Touba ñoo fay génn pour dem Dakar policier bi dëggal fit wi mu dëggal fit parce que wax na dëgg rew mi anarchie la réew mi Muntaxa lu ko neex lay dogal ci réew mi Sidi Mbacke lu ko neex lay dogal Macky Sall réew mi amul loi amul norme amul république amul Ismaïla Madior Fall taxaw fële di fen te Ousmane Sonko moom c'est définitif Macky Sall jaar fee Mountakha kenn ku ci nekk di wax lu la neex lépp di ay fen Bassirou Mbacké ne dara jàmm am ci réew mi kenn deewu fi lépp a ngi macha allah Macky def na Touba 45 milliards macha allah coow amu fi yàlla wàcce taw bi. réew mi ñëpp ay fenkat lañ ci ay fen ngeen juddoo ci ay fen ngeen màggee ci ay fen ngeen nampe ba fer ci ay fen ngeen di lekk ci ay fen ngeen di dee ci ay fen ngeen di dekkee ci ay fen moo leen safara moom it mu jóg damay jaay téléphone am naa as tuut ah, man ci bool bool yi laa ci taalibe yi laa xam naa ni réew mi doxee système bi la mafia bi

ñu xalal ko yoon yi sens interdit muy dugg tuuba Touba fi xanaa boo dugg tuuba nga nëbb ko waaye ma ngi koy filmé li lay xamal ne ab làppato la làppato lu mu bari bari xaalis ab làppato la doon moom li mu def tëgguwul ci yoon au lieu que mu làqatu mu dugg ko filmé nag def ko ci réseau yi nag di wane wooy nee na wooy day duufal da ngay seet lii ku mas a gis lu mel ni réew mi nañu ko jox japonais yi may leen ko wala allemand yi billaahi buñ leen ci laaj dërëm nañ jël réew mi taxañ ko ne japonais yi may nañ leen ko un franc symbolique allemand yi may nañ leen réew mi ngeen defal ko ñi fi nekk ay làppato lañ ut leen ay gétt ngeen takk leen ci ay jéng bu kenn buuse ngeen defar réew mi wulli li ci nekk yëpp mosal leen ci ndax ñoom bëgguñu dara fexe leen bañu am ndox mu tuuti mu ñu naan ak café bu ñuy tàngal bàyyi leen ci jàkkee ak jumaa yi ñuy durus ay xasida li ci des jël leen or beeg pétrole beeg gaz bi yéen allemand ak japonais yi yóbbu leen lépp te ngeen leen di sànni mboxam ñuy yëy mboxam di naan tuuti ndox dégg nga maam ñuy ñu bàyyi leen seen kuréel ñu ngi durus ki kuréel ki bàyyi rek ay bàyyi faal li ci des yëpp yóbbu leen tugal yóbbu leen du ñu ay nit. ñii kañ boo jëlee waa ji gis bu leen may dara bu leen posal dara. dàq nañ borom motaar ba moom sanction dàq nañ sanction nañ ma nga jàpp na ko ràpp ci kaso wàcce. lu tax parce que borom mataar boobu boo demee ni ngi ñett jabar moom it di di di di di coro ñeenteel bi moom it bisu màggal gi bisu dóor la xam nga maître Babou daf na woon Touba est le lieu de tous les trafics bisu màggal gi nag mooy bis bi ci at mi nga xam ne nag mooy bis biy symboliser trafic bi mafia bi bisu màggal gi mooy bisu mafia bu mag bi xam nga tous les jours dafa am mafia Touba mais bisu màggal gi nag moom ci la ñuy def inauguration bi ci lay fête bi la fête de la mafia bisu magal gi la motax police bi te bis bi bisu mafia la mu ne ma it ma dóor ci parce que Muntaxa day dóor Basiru Mbàkke day dóor Baali Muntaxa day dóor Macky Sall day dóor Antoine dem day dóor dëkku dóor la dóor dóor dóor dóor dóor legui dañu dóor dóor ba legui dañuy gëm di dóor police bi tamit may damay gëm di dóor ah bisu dóor la moy bisu magal gi ci rew mi la xew de gëm dóor gëm dóor police bi tamit gëm dóor mi neex neex de parce que ay nit ñoo fi newul mu ne ma sëriñ si ma gis fii de ci wetu jumaa yi ngi tabax rek ah sama gars yi boo demee dañoo mos de ñii est ce que makki joxu leen ay malet ma ne ko ah boo demee de mu ne ma ñi ngi peinturaate ki defaraate ki climatiseur yeeg karale peinture ba mu liis waaye ñoom ñii def loolu ñoom kër sëñ Abdoulaye rek kër sëñ Fallou googu ci wetu jumaa ci buntu bi ci ginnaaw ndox ma fa ne déeg ba fa ne ko ñoom toppatawuñ ko maanaam ceetu ganaar la ñu am ganaar simmi tëdd dong lay faxas fexe ba tëdd fa waaye li muy faxas kas mi ngi ci wet gi mais toppatoowu ko moom daal fi muy teg ndo loosam bi ganaar gi ganaaru dàq jàpp gi fi muy teg loosam bi foofu moom dana ko faxas ba man faa tëdd loolu mooy ñii Sénégal gépp noonu la ñu mel nag waaye rawatina waa Touba cetu ganaar la am cet goo xam ne fi may teg sama loos yi danaa ko faxas ba mën faa teg sama loos waaye salte yi nekk ci wet gi moom sama yónnewu ci réew mi mel nii fan la jëm fan la réew mi jëm waxoon naa leen fi fan yéene ne leen sëñ Fallou sëñ maam Cheikh Anta Mbacke bi mu demee bi mu demee Karang di fa seet si benn nijaayam dañ koo jàppoon tubaab bi jàpp nañ ko ba yóbbu ko Ségou. yaayam boobu mi ngi tudd Samba Tukulóor Ka Samba Tukulóor Ka boobu benn su duñu xaadar yàlla woon bu mag bu nekkoon ca foofee ca Karang sànq dama bind ne Serigne Touba né en 1853 connu de son vrai nom Mohamed Ben Habib Ben Abdallah Ben Habib Habiballah waaw tuddul noonu loolu fu mu jóge Serigne Touba Amadou Sall tuddul. Amadou Sall lañ ko tuddé waye mamour Mor Anta Sali weddu khadri la yoron kiko jox ijaza ijaaza ya bi mi ngi tuddu Samba tukulor Ka kon ca karam mo jox mamour Mor Anta Sali ijaza weddu ya Samba tukulor Ka bobu tur wi ma len wax mohammed Ben. Habiballah bi bindu bind sànq tur Samba tukulur Ka moko jox Serigne Touba moko jox Mamadou Ansa jox Serigne Touba. Samba tukulur Ka. waaw mom lañ tud mom lañ de karang dañ ko an rang ca karang ndax dafa amone xam-xamu mystique ñukoy rang ca dekk bobé nga xam daanaka mom lañ ko tuddee mom ka gi mu sant ak rang giñ ko woon rang ñu ne ka rang rang ga ca ka mom ni moy Samba tukulur Ka nijaay la wala boog cousin la woon ci ñoom di ay mbokk ak ñoom ay mbokk lañu moom ak Maam Mor Anta kon loolu waxoon naa ko fi fan yee waaye comme loo wax ñu dajji loo wax ñu teggi ah waaw loolu kenn ku ci nekk am nga sañ-sañu lu neex nga teg teggi comme tey la màggal dañuy màggal kan mooy Cheikhul Khadim posté naa ko wax leen fi mu jaar yépp sànq ci sama page wax leen at yi mu juddu turam ak dëkk bi mu nekk at mu nekk ak ni mu génnee yi mu juddoo mille neuf mille huit cent cinquante trois ba cent vingt sept wax naa leen fi mu jaar ak fi mu dëkk ak fi mu dund yëpp at par at ak dëkk bi mu dëkk ba ni mu génne àdduna ah moom Cheikhul Khadim moomu doomam bi mag ci doomam yi mi ngi tudd Mouhamed El Kabir Mbacke moy taw mohammed al Kabir Mbacke Muhammad al Kabir Mbacke moomu ni ko am ak soxna suñu wax soxna Faati Samba samba Diop soxna Faati samba Diop ñaarel domam bi mu am muy Muhammad Al yadali Mbacke ni ko am ak soxna suñu wax Mariamu Balla ñetteelu doomam bi di ki nga xam ne mooy ki njëkk a nekk xalifaam di Mouhamadul Moustapha Mbacke bi nga xam ne mooy njëkk toog ci seen xilaafa gi ginnaaw 1927 bi Serigne Touba bàyyi ko sëñ Mouhamadou Moustapha du taawu ci Seexul Xaddim ñetteelu doomam la waaye bi Seexul Xaddim di génn àdduna fekk na ñaari doomam yu jiitu génn àdduna muy Mouhamad al Kabir ak Mouhamad al Yaddaali ñoom ñaar dañoo génn àdduna njëkk Serigne Touba moo tax. bi cheikhul xadim genné aduna dom ji nga xamné mo ci magon ci boobu jamono moy ñettelu domam di seigne Mouhamadul Mustafa Mbacke moy premier calife 1888 la juddu genn aduna 1945 waajuram bu jugen di soxna Aminata Lo dañuy magal di kenn duñu dakk magal sama màggal gii bala ngeen a dem du ngeen dugg fenn Touba ba gis fa magal gu gëna neex sama magal gi ku ci bëgg a màggal na nga ñëw fii teewlu lii may def mooy màggal gi de yéen da ngeen di noos di sëpp ak a seppeek di noos ak man maa leen di indil ngeen xam lu ngeen xamul woon li may wax ñu bari am na ñu ko xam ne am na ñu ko xamul ñi ko xam taxu ñu may wax ñi ko xamul laa bëgg ñu xam comme ñi ko xam du ñu def effort pour xamal ko nit ñi te lépp lu nit nekk da caa war a am xam-xam xam-xam mooy tax la nga nekk mu amal la njariñ waaye ñi ko xam ne pat di leen jox ay yàpp ak yi ngeen di sëpp ko seppi bu déwénee ngeen ñëw sëpp seppi te li ngeen nekk amu leen ci xam-xam da ngeen ci dee tàbbi safara laa wax moo tax man damay wax pour ñëpp xam boo xamee da ngaa war a wax pour nit ñi gindiku ku jël baax na ku jël baax na doo forcé kenn ndax yàlla forcé wul kenn nag waaw laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha yàlla wax lekkum diinukum waliya diin yàlla ci boppam bind jaami bind ñëpp forcé wul kenn kenn ku nekk dalaa bàyyi ak sa libre arbitre li nga xam nag am nga droit ne lii laa xam wax ko ku bëgg jël ku bëggul bàyyi forcé woo kenn. waa il faut ñu xam benn affaire il gis nga yi ay patrimoine la yoo xam ne paa yi dañ ñoo yàgg noggatu maam noggatu suñuy baay. histoire Serigne Touba ñoom moomuñu ko Mbàkke Mbàkke moomuñu ko Serigne Touba patrimoine national la. ñiy dugal ñiy dugal seen troll yi dugg ci Facebook YouTube bi di ko tagg de de de dee ci bàyyi xel day. yàq page monsieur bloqueur moo ne fii bloqueur bloqueur. li may wax nii li may wax nii man waxuma man du ma taalibe man waxuma ko ci ak taalibe waxuma ko ci ay pas-pas Serigne Touba murit yi moomuñu ko Sénégal gépp ko moom dafa am jaar-jaar am histoire boo xam ne dundam dafa am njeexit ci réew mi loolu kenn du ko weddi am njeexit ci askan wi kooku dañuy wax ay wax boo demee France dañuy wax waxi dëggal di wax waxu pétin dëkk boo ki dem ci adduna bi am na fa ay mag yoo xam ne seen dund dafa am njeexital ca askan wa dañu koo def ci livre di ko jàngale di nettali seen i jàllale seen i jaar-jaar seen i dund yëpp dañ koy nettali loolu dafa bokk ca mboorum réew ma ca histoire ba la bokk loolu ku mu naqari nga naani géej gi mais dañ koy teg lépp parce que Serigne Touba c'est moom léegi personnalité publique la. ni ñuy waxee ci Macky Sall noonu la ñuy waxee Serigne Touba parce que dundu Serigne Touba dafa am dafa yëbb ci réew mi dafa yëbb xaw ma na xam ngeen du yëbb dundam dafa yëbb ci réew mi waaw mënut kon nit nag mënut a dund am réew dund ba yëbb ci réew mi askan wi yëpp daj ci yëbb yëbb bi ko waxtaan am ñaan kenn du ko wax parce que seen i pas-pas la ñun dañoo toppatoo loolu man damay man danaa ko lu ma xam naa ko teg ci ñoom ñëpp mag ñu nekk ci réew mi ñëpp ñoom ñëpp nag benn par benn. paa bu fi yëngal rek ku fi yëngal sa maam rek dinañ ko càmbar. kon sëñ Mouhamadul Moustapha mooy premier xalifa Serigne Touba mooy ñetteelu doomam ñeenteelu doom bi di Serigne Mouhamadul Fadal Mouhamadou Falilou Mbacke ñu koy wax sëñ Mouhamadou Fadal moom it mi ngi judd 1888 sëñ Mouhamadou Fa sëñ Mouhamadul ak sëñ Mouhamadou Moustapha ñoo bokk benn at biñ juddu 1888 waajure mu jigéen di soxna Awa Buso Buso bi mooy ñetteel mooy ñeenteel doom bi sëñ Fallu juróomeel bi di sëñ Mouhamadul al Amin al Baara sëñ Mouhamadul Amin mooy ki ngeen tudd sëriñ Baara Mbàkke mu ma mu kooku mooy turam dëgg-dëgg Mouhamad al Amin moom mi ngi judd 1890 ba 1939 Mouhamadou Amine Baare boobu moom ak Serigne Fallilou Mbacké ñëw bokk waajur wu jigéen muy Serigne Soxna Aminata Lo muy juróomeelu doom ki ci topp juróom-benneel bi di Mouhamed El Bachir nit ñu koy wax Basiru mooy waajuru. Père Noël bi fi nekk tey Mountakha Mbacké wajuram bu góor Mouhamadul Bachir moom borom xam waaw Mouhamadul bashir moom borom xam-xam la woon waaw Mouhamadul bashir moom yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla yërëm tabal ko àjjana ca xam-xamam ba parce que xam-xam du caaxaan nit ku am xam-xam da nga koy jox war xam-xam dafa am respect bu mu laaj xam-xam dañu koy warmaal jëmm ju mu nekk jëmm jooju dañu koy warmaal xam-xam du caaxaan moo tax man damay taxaw ci moom sëñ Mouhamadul Moustapha pas sëñ Mouhamadul Moustapha mais sëñ sëñ sëñ Mouhamadul Bachir borom xam-xam la woon kon yàlla na ko yàlla atte ca xam-xamam ba yàlla na ko yàlla yërëm ca xam-xamam ba yàlla na ko yàlla xare àjjana ca xam-xamam ba moom sëñ Mouhamadul Bachir di wayjur wu góoru sëñ Mouhamadul mu sëñ sëñ Mount sëñ Muntaxa mi fi ne borom alif laam laam ho ki waroon a ëpp xam ki waroon a ëpp xam-xam ci sa sëñ Tuubaa yi moom moom moom mii la woon lu taxaat yi moo ci waroon a ëpp xam-xam moom moo a dàq jàng ëpp ci xam-xam teg ko ko gis moom mun taxaa nii ndax waajuram borom xam la woon xaw ma na ko ko waaye moom ku waroon a am xam-xam la moom waaye euh, soxna baalee ko poñe kooku mooy kon sëñ Mouhamadul Bachir di juróom benn doom juróom benneelu doom sëñ Mouhamadul Bachir soxna Faati Madu Maam moo soxna Faati Madu Maam Faati Madu Maam juróom ñaareelu doom bi di Abdoul Aziz judd 1909 génn àdduna 1960 waaye juróom bu jóge di soxna Fatima Kabir juróom ñetteelu doomam bi di Ibrahima Mbacke Ibrahima Mbacke mii nag ñaar la ci am bu njëkk bi mooy Ibrahima Mbacke bi judd 1911 bi nga xam ne moom lañu ne mooy way juru euh, ki nga xam ne mooy euh, sëriñ Atta Mbacke mi sëriñ Atta mi ne moom moom ci ñi mag ci mag ñi tey ji la moom sëñ Atta sëñ Siide yooyu ñaan kii mag magul doom la ci nga xam ne mooy sëriñ Ibrahima Mbacke. un numéro un bi